asalaamaaleykum dal leen ak jàmm kan moo nar a jiite assemblée nationale mbir mi soxal na lool ëttu yéenekaay bu groupe su Communication du Sud Quotidien muy xamle nag ku jigi daal dafa fas yéene xajamal ci réew Benno Bokk Yaakaar bu fukki fan ak ñaar ci weeru septembre jotee bës bi nga xam ne daal si la ñuy dalal fukkeel ak ñeenteelu législature jaare ko ci intercoalition Yewwi Wallu bi nga xam ne daal mayul dara waa Benno Bokk Yaakaar. mbir yi daal narul yomb dara ci place Soweto bu ñu sukkandikoo suñu naataangoo bii fare ci gi baa li ko waral mooy ku gi nga xam ne dafa am doole nag ak juróom-ñetti fukki député nga xam ne moom la intercoalition wàllu Yewwi am ak ñaari député yeneen yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Aar Sénégal ak MPR les serviteurs maanaam ceex Thierno Alassane Sall ak Pape Djibril Fall ñoom daal dañoo fas yéene jiite assemblée nationale boobulee ñu des ak waa Yewwi wàllu ak waa L'Enquête di waxtaane ba tey kan moo war a jiite assemblée nationale ni mbir mi daal jax na lool ndax ku nekk daal moo ci samp am ndëndëm suñu naataangoo bi di ñu xamal ne lum néew néew ñeenti nit yëkkati nañu loxo ne ñoom daal boobule poste soxal na leen ku ci mel ni am ay dara Ahmed Aïdara Cheikh Bara Dolly Mamadou Lamine Thiam ak Barthélémy Diaz kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk bi la intercoalition nag gisee nañu seen biir biig ñu dellu si si boobule gisee ak bés bi le jour bi ko méngalee ak lajj passif daal fës na ci lool ndax ñoom ñooñu lee bu ñu sañoon daal kii di Birame su Diop la ñuy teg ci bopp assemblée nationale suñu naataangoo bi bii ñu xamal ne am na beneen réunion boo xam ne danañu ko ci amal ñu des ak waa ak waa tribune amal nañ seen wax waxeet bu gën a fës kilifa yi ngonk Yewwi Askan Wi fi mu toll nii daal ñoo jalgati bu baax a baax li nga xam ne moom la ñu diggoon askan wi maanaam daal du ñu nangu benn yoon koo xam ne da ngay am ñaari ndombo tànk waaye dafa mel ne nag loolu la ñu def ndax député yi nga xam ne ñoom lañu ñu fal ci Yewwi Askan Wi ñu bëri ci ñoom ay maire la ñu ba noppi te it dañoo fas yéene teew ci assemblée nationale ak lu mën a am le vrai journal askan wi ci boppam moo doyul sëkk ci wàllu politique rawatina way jëfandiku yi ñoom am studio wala appartement moom fi mu toll nii kenn xalaatu ko fer bi ak ciment bi it daal seer na lool bu ñu jugee ci askan wi nga xam ne seen xol neexul dara ñu jàll ci aéroport international Blaise Diagne fekk ji fa privé sénégalais bi nga xam ne daal ñoom it mer bu la ñu def ñuy fàttali waa l'info nii ñoom ay ndaw la ñu ñu dugal seen koppar foofule ngir mun fa liggéey waaye nag ni aéroport bi dooree ba tey jilee ay milliards milliards la ñu fa indi waaye gisuñ ci seen bopp ñu des ci aéroport international Blaise Diagne ba tey ak waa l'observateur heures diñ yeggee la fa xew ak bataaxal maison de mairie nga xam ne moom la waa laas yónnee ak it boru ñaari milliards kopparu CFA bi nga xam ne moo tegu foofule ak it mer ba futt bi nga xam ne moom la prestataire yi nekkee ci jamono ji suñu naataangoo yi ñu xëyee ndool di waxtaane it wàllu plan Orsec bi di ñu fàttali lépp ni mu dooree ci li nga xam ne daal téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti bërëb daal ñoo ne ci ndox mi waaye nag bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi nga xam ne moom la ministère bi ñu dénk wàllu biir réew mi yónnee ci yooyu la nag juróom-ñeent fukk ak juróom-benn yi nag ñu ngi fay jëlee ndox ma ëttu yéenekaay yi ñu xëyee ndool leneen lu ñuy yeggee it muy liir ak benn yi nga xam ne ñoo ñàkkoon seen bakkan ci laqub hôpital Mame Abdoul Aziz Sy bu Tiwaawan Fodé jonn bi nga xam ne moom lañ dénk wàll maintenance ci boobule hôpital nag moom it nañ ko ci kaso bi démb ñu jugee ci Tiwaawan jàll ci Touba waxtaanee ak waa Laas fatwa bi nga xam ne moom la Serigne Mountakha yëkkati jëmale ci ñi nga xam ne nag dañuy ñëw ci Touba waaye wut si wuñu bi leneen kay leen tax a jóg Serigne Mountakha Mbacké di xalif général kulli murid di fàttali ne nag reen jile nag moom dañ dul baan lenn kenn ñu jóge ci dëkk bu sell bii di Touba jàll ci tubaab jalaaw libération di ñu yeggee la fa xew dafa am benn élève boo xam ne daal fukki at ak juróom-ñaar la am moom daal dafa xam ne waajuram bu góor jot na kaa siif yoon yu bëri police Guédiawaye nag mi ngi bàyyi woon gët waajuram bu góor le ci novembre atum 2021 ba tey démb la ñu ko yóbbu ci kaso bi ci wàllu caada nag la soleil tey jii daf ñoo yóbbu ci village Sédhiou bii nga xam ne mooy Sandi Jéeri nga xam ne daal li gën a fës foofule mooy ñoom daal dañoo bañ lànk kaare ne kenn du leen noot rawatina tubaab yi soleil gën ñoo xamaleek boobu la dëkk ci wàllu tàggat yaram nag waa SAD di ñu yéegee ne transferu Ghana ci Everton nag moom démb la yemb dina tax daal bu mën a tàggatoo jëmale ci mondial bi ñu jëm ginnaaw ñetti saison yoo xam ne mu ngi ko nekkoon ci PSG ak it juróom-ñetti coupe yoo xam ne jot na kaa am ñu jóge ci gànn Gueye jàll ci beneen gaynde ak waa record muy Pape Matar record bi waxtaanee jongante ci diggante West Ham ak nam bi nar a am ngoon di ne ndax Pape Matar nag li ma bugg ci Conte dana ko am ci CHAN 2023 bi nag ci ajuma ji ñu jëm waa Guinée ñu dajeek waa Sénégal gaynde yi sax tey jii ci suba la ñuy dem ci Bamako mu ñu sukkandiku ci record Matar baa ministre bi ñu dénk wàllu tàggat yaram nag di xamle ne daal coupe du monde bi daal mën nañu ne dina door suñu réew ci juróom benn fan ci weeru septembre ak coupe du monde bi nga xam ne daal ak coupe du monde bi nga xam ne dana ñëw gane si suñu réew ñu jeexale ko sport bi nga xam ne mooy mbaaxu réew mi di wàllu lomb ak waa suñu lomb bii waxtaane mbirub Ama Baldé ni Ama Baldé nag bu yeboo daal Gris Bordeaux bàyyi ko xel bu baax Ama Baldé bi nga xam ne toog na fukki at yoo xam ne kenn daanu ko ci weeru février bu atum 2023 Gris Bordeaux daal dana amal combat boo xam ne moo gën a am solo ci carrière ndax dafa nar a dajeeg rakkam bile di Ama Baldé te mu war kaa dóor bu buggee daal wuy goo xam ne gu rafet lay doon ci arène bi lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyee xëyandool ñu yendoog jàmm bonjour Présidence de l'Assemblée nationale, l'opposition joue le trouble fête. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Quand Benno Bokk Yakaar et l'intercoalition Yewwi Wallu s'apprêtent à un duel sans merci pour le perchoir le 12 septembre prochain, date de l'installation de la 14e législature. Le contrôle du perchoir ne semble pas parti pour être une partie de plaisir pour le groupe parlementaire affilié au pouvoir en place. D'après le quotidien du groupe Communication, pour cause, l'opposition forte des 80 députés de l'intercoalition Wallu Yewwi et des deux parlementaires de la coalition Aar Sénégal et de MPR, les serviteurs en l'occurrence Thierno Alassane Sall et Pape Djibril Fall entend elle aussi briguer la présidence de l'Assemblée nationale surtout que pour cette quatorzième législature elle se retrouve face à une mouvance présidentielle dont la majorité parlementaire ne tient que sur un fil Ne quittons pas de sitôt l'Assemblée nationale. Restons-y pour toujours nous intéresser à sa présidence avec Yewwi Wallu, avec l'enquête. C'est le choc des ambitions. Ahmed Aïdara, Cheikh Bara Dolly, Mamadou Lamine Thiam et Barthélémy Diaz convoitent le fauteuil. Les leaders de l'intercoalition se sont réunis hier jusque tard dans la nuit. Le confrère renseigne qu'il y a au moins quatre prétendants pour un poste. D'ores et déjà, trois groupes parlementaires sont prévus. février. Et enfin, Pastef et amis, restons avec ce huis clos de Yewi Wallou sur le candidat au perchoir que Bës Bi Le Jour qualifie d'échec. Pastef dans la danse. Les cadres proposent Biram Souleye Diop et les candidatures de Barth, Ahmed Aïdara et Lamine Thiam ont été enregistrées. Le confrère signale qu'une nouvelle réunion est prévue au moment où Tribune nous parle de ce premier grand wax de Yewwi les leaders violent l'engagement contre le cumul Yewwi saborde sa charte en effet les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi avaient pris l'engagement contre le cumul des mandats mais avec des maires et les députés qui ont décidé d'aller à l'Assemblée nationale Yewwi fait du wax-waxeet assez les Sénégalais sont fatigués informe le vrai journal et pour cause les consommateurs sont abandonnés aux commerçants on relève des prix hors de portée pour les studios et appartements, alors que le fer et le ciment également sont hors de prix. Après le ras-le-bol des Sénégalais, place à la colère du privé sénégalais à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass avec l'info privé qui déclare, je cite, Nous sommes des jeunes, nous avons investi ici pour travailler et depuis qu'on a démarré, c'est des milliards et des milliards que nous avons mis dans l'aéroport. Restons avec ce gros malaise à l'aéroport international Blaise Diagne avec l'Observateur qui informe que les mises en la dette de 2 milliards de que la grogne des prestataires. La presse du jour informe que depuis le déclenchement du plan Orsec, 192 sites inondés ont été recensés, dont traités et libérés et autres en cours de traitement, signale un document du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Retenez également que dans l'affaire des 11 bébés calcinés de Tivaouane, le dernier mis en cause est libre. Il s'agit de Fodé John, le chef de la division maintenance de l'établissement. Quittons Tivaouane pour une autre religieuse, cette fois-ci Touba, avec la recherche de buzz autour du Magal, la fatwa de Serigne Mountakha, relayée par l'AS. qui est forme coutrée par certaines dérives lors du Magal, Touba plaide pour une orthodoxie non négociable cette année. Au moment où à Toubab Dialaw, une élève âgée de 17 ans accuse son père de viols multiples, dont le collimateur de la police de Guédiawaye depuis novembre 2021, il a été écroué hier. Dans ces feuilles d'hivernage, le soleil nous mène ce jour au village de Sédhiou, symbole du refus colonial, Sandiniéry à l'épreuve de la modernité. En sport, SAT le quotidien du sport s'intéresse au transfert à Everton de Gana Gueye qui a été bouclé hier, Gana pour s'épanouir avant le mondial. Après trois saisons au PSG et huit trophées glanés, après Gana place à un autre lion, cette fois-ci Pape Matar avec West Ham Tottenham prévu à 18 h Record s'interroge Pam Matar a-t-il une chance de convaincre Conté La presse du jour donne la parole également à Matarba, le ministre des Sports, qui affirme que le mondial pour nous démarre le 6 septembre prochain avec le Trophy Tour. Record s'intéresse également à la CHAN 2023 avec la rencontre entre la Guinée et le Sénégal prévue vendredi. Les Lions se rendent à Bamako ce mercredi matin. Alors que pour la cinquième journée de la Ligue 1 prévue ce mercredi, le PSG est sous la menace de Marseille et de Lens. Sunu Lamb s'intéresse ce matin à Ama Baldé, qui est un sacré client pour Gris Bordeaux. Il est resté 10 ans sans défaite et invaincu à face. Au mois de février 2023, Gris Bordeaux va disputer sans aucun doute le combat le plus important de sa carrière. Il va faire face à son jeune frère Ama Baldé, un adversaire de taille qu'il doit obligatoirement battre pour ne pas sortir par la petite porte. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.